ñu ngi leen di siyaar baax di leen nuyu euh, di sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, man la Ousseynou Seck mu nekk manager. waaw ronu manager yi moom wax dëgg yàlla am na manager yoo xam ne dëgg yàlla euh, làmb da leen war a delloo njukkal. waaw surtout ma région de Thiès bi nga xam ne manager yi ñoo bokk ndey bokk bàyyi bëri fi wax dëgg yàlla lool am na manager yoo xam ne ay manager lañ dañuy sonn ci wàllu làmb dañuy sonn ci wàllu mbër am na ñoo xam ne moom seen intérêt bopp doo nga leen ñor leneen ñoru leen waaw loolu moom yi waaw am na ci manager bu baax a baax a baax am na ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla lamb da leen war a delloo njukkal waaw man rôle bi nekk samay mbër manager daa mel ne seequ ñu manager ay mag lañu rek waaw ay mag rakk wax dëgg yàlla ndax maag ñoom ah, bi ñuy ànd du tey waaw bi ñuy wax dëgg yàlla lamb Cees moom ah, am na rôle boo xam ne joué naa ko ba lamb di lamb ba muy tëgg lamb commencé bi mbapat bu nekk tëgg lamb ñoom Modou Anta ñëpp bëreel nañ ma bëreel nañ ma samay samay journée yoo xam ne bu doon tëgg jóge fi tëgg lamb calendestin ci dëkk bi tëgg naa fi làmb clandestin yu bëri ci laa déparé nag euh, ba yàlla euh, Babacar Diop mi nekk président woowoon ma na ma làmb clandestin yi ngay dëgg da nga koy bàyyi euh, ñu ànd ci ak Maysa Ndiaye nekk ko ci Thiès bu dee cinq cent cinq cent litres fi nekk cinq cent litres deux cent cinquante maa leen defaral licence waaw CNG jàppale naa ko bu baax làmb tey bu eggee fii CNG damaa war di la njukkal waaw ndax wax dëgg yàlla liggéey bay naa ci waaru rëy ci làmb Thiès Thiès moom ñëpp xam nañ ko maa dem ba benn instant nag ma reculer ci wàllu làmb wàññi lu bëri ndax làmb euh, li ci bëri li ci ëpp boo amul ngo boo boo bëggee yàq seen ngor wala dëgg dëgg dëgg da ngay nekk ci làmb ndax am na foo xam dimension ba xam bëgguma fa egg ak doomu aadama làmb bëgguma mooy tàqale ak ay doomu aadama loolu tax ma reculer ci làmb lu bëri waaw am mbër yu bari yoo xam dama leen delloo seen licence waaw loolu moo moo ci nekk waaw kontaan rek kontaan euh, defe naa du la première fois fii Thiès ndax CNG mos na ko organiser première édition bi CNG jëkk organisé bu rëy avant Dakar ñi invité waa Dakar ñëw boobu man lañ jox man lañ joxoon raaya bi maa woon yaakaar naa kon bu ñuy organisé nii yaakaar naa xam naa raaya bi man lañ koy joxaat rek ndax xam naa lamb Thiès ba ci liggéey moom ah ñi ci des de xam naa dinañ ma sax dinañ gërëm bu fu ñu toog xaw ma ñan ak ñan lañ jël de waaye ñooñu moom xam nañ am nañ problème bu baax a baax xam nañ bu dee bot la rek xam naa ne maa koy gañe moom <laughs> waaw <laughs> waaw ndax wax dëgg yàlla kenn bu ñuy xewlee dara ñëpp dañ koy ñëw taxaw moom ñëpp moom dañ koy rafetlu surtout maa Thiès Thiès moom gars seen fay lu fi mënti xew ak lu mu mënti xew la fu mu nekk gars yi ko taxaw dañ ci def participation bu baax gars yi dinañ taxaw ndax wax dëgg yàlla loolu la ànd di waaw ndax gars yi moom euh, yaakaar naa Thiès ni ñu mel ci ci manager ci région Sénégal yaakaar naa amul région bu ko mel ak dëkk même Dakar sax melu ko xeex bu njëkk ba xeex metti woon na lool avant ñu fay dugg bu ñu fay dem si yàlla ñoo ngi koy ñaanal Pape Dieng yàlla na ko suñu borom xaare àjjana xeex nañ ci ak xeex bu am solo ak yow Mamadou Seck xeexoon nañ ci ba yenn manager amoon ci carte nationale bi ñu ñëwaatee ñoom Xaadim Sarr ak ñoom Pambay def ci rôle bu am solo bi Xaadim jiite ànd ak Pambay ñi def ci rôle bu am solo xeex xeex bu métti ba gars yi manager yi xaaj mi ñu bëggoon dugg Dakar ñëpp dugg nañu ñi nga xam ne essence yi moom dañ ciy am doole à part Dakar moom Thiès ngay wax à part Dakar moom jamono ji toll nañu Thiès ngay wax ndax loolu moom gars yi xeex nañ ci xeex bu am solo waaw dañ ci woo ñëpp rek ñun moom wax dëgg yàlla dañ ci woo ñi di woo suñu mbokk taalib yëpp ñun moom xam nga li ñu am moom lu ñu lu lu ñu am moom sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ñu ko moo ñu moo ñu ko gënal ndax lépp lu ñuy woo suñu mbokk taalibe yi nga xam ne lañ bokk sëñ Tuubaa lañ ñoom lañ ci njëkk a woo waaw ndax lii lii may def nii sax am na tele lu may feeñ ci télé bu bëriwul sax ndax wax dëgg yàlla damay laax ci lu bëri ndax jëwriñ ji ma ji ma àndal ci liggéey sëñ bi am na yu bëri yoo xam ne bu ko moo tax lu bëri ma wàññi ndax liggéey së bi moo ma gën a ñor lépp lu ma am sama àdduna ci jamono ñu toll nii ndax yu bëri ni ma meloon ay jamono nit ñi gis nañ ko moo tax lu bëri dama ko wàññi kon maa ngi ciy woo sa mbokk taalibe ak ñeneen ñi nga xam samay wóolare lañ maa ngi ciy woo di sant manager yëpp di sant manager Pambay ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm gis nañ le rôle bu am solo bi muy liggéey ci làmb ci Thiès wax dëgg moo ngi koy dox di nuyu euh, suñu président bi nekk Khadim Sarr suñu président bi nga xam ne moo fi nekk mooy Abdou Aziz Ba ñoo ngi koy siyaar di ko nuyu bu baax di ko gis gis nañ taxawaayam ak ni muy sonnee ci làmb Thiès réunion yi day jógee Mbour ñëw ba fii organiser fu nekk dañuy dem comme amu amuñu fayam ñoo ngi koy sant gis nañ taxawaay bu baax bu mu ñëwee ba léegi jiite affaire bi gis nañ taxawaay bu baax kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm ak bépp manager bi ne mu ngi ci réseau de Thiès rek ñoo ngi lay bu baax a baax waaw xam nga loo gis moom faaw faaw mu am ñuñ tànn ndax ñëpp moom ku nekk bay na ci waaram ci wàllu manager ci région de Thiès bi ku nekk bay na waar waaye ñi ñu tànn moom dañ ko mérité ku ci ko ku ko ci jox rek ku ko ci yàlla jox rek mérité nga ko waaw tax ñoom ñëpp mu wax dëgg yàlla ñëpp ñu sonn ci làmb te ñoom li manager rôle bi manager laaj ñoom dañ koy def ñoom topp ñu jël 10 pour cent mbër dugal seen pos ndax dañuy topp affaire bu jeex bu ñu war a mbër war a dugg 3 heures boo ñëwee ci buntu stade ba nga leen fekk 2 heures ñu toog di xaar fa la ñuy jullee toog xaar mbër yi ñëw ñu dugal leen xam nga kooku moom ah, bu ñu ko waree delloo njukkal lu ñu ko ko delloo rek doyul waaw ndax ñoo ñëpp samay confrère lañ moom ku ko jëm mënta gagné baax na waaw ku ko ci mënta jox rek dañuy ànd ak moom ci sargal bi kontaan bu baax a baax ndax ñoom ñun ñëpp benn lañu waaw loolu daal lañ ci am luñ ci wax waaw kàddu gu mujj sant ak sant ak gërëm rek di di wax nag euh, suñu suñu suñu maire yi nekk ci ci gox bi ak. waaw Pape Doumbia dañ koy sant di ko gërëm gis nañu taxawaay bi muy taxawaay ci gox bi ak jàppale yi mu jàppale mbër yi ak yi muy jàppale ñeneen ak ñeneen ñu ñoo koy gis ñu ngi teg suñu bët kon dañ koy encouragé fi li mu bëgg yàlla ko suñu borom defal waaw di ko encouragé baax di wax na dëkk bi nag ah li ñu manqué bëri na problème stade bu mbër yi bëri amuñu benn stade boo xam ne mbër ñu ngi fi bëree kon loolu ñaaw na ci Thiès Thiès lu toll ne à part Dakar mooy ëpp li muy tëgg ci journée Thiès dem ville bi dem ba amatul stade bu mbër di bëree waaw kon daa mel ne mbëri moom bokkatuñ ci ci dëkk bi moom ñoom dañoo mbëri bokkatuñ ci dëkk bi fu joueurs yi am nañ fu mu boole basketteurs yi am nañ fu mu boole fuñ basket mbëri moom amuñ fuñ bëree kooku moom daa mel ne moom dañ lañ cee génne te loolu moom ah, dinañ ca taxaw incha allah ndax ñun ci dëkk bi lañ bokk te ñun dañ cee li gars yi amee wàll lañ ci war a lañ ci amee walla waaw kooku moom autorité yi nekk dëkk bi yëpp bay boo ñu xam ne Thiès amatul stade bu bu mbër mën a bëree te loolu lu warul waaw loolu moom warul waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag